alors euh, bu ñu ñëwee un peu ci sa quotidien lan mooy sa quotidien boo xëyee lan ngay def. su ma xëyee. Mhm. man na li ma ëpp lu may def bu weesoo bu waxtu julli jotee ma julli. Mhm. sama téléphone laa nekk. lay sa téléphone bëgguma di base ci ay waxe ay kii ak yooyu non sama téléphone. Mhm. tout le temps man li xew ci réew mi xam naa ko lépp lu jaar sa téléphone nii xam naa lépp. kon yow tu passes tout ton télé tout ak sa téléphone. bu toute la journée su fekkee nekkuma ak sama wotu euh, doom yooyu di kaf ak ñoom Baaba ak Mohamed. non maa ngi sama téléphone nag parce que bëgguma dugg ci waxu jàmbur. mais nekk sa téléphone nekk di dugg ci waxu jàmbur. par ah. exemple mën nga dugg ci réseaux sociaux yi. réseaux sociaux yi ku ko moom. kenn moomu ko. waaw boo fa demee waxu jàmbur nga fay fekk. ah waaw eh, damaa woo jàmbur. <laughs> jàmbur wax li mu wax mu dugg sama téléphone moom samay bët di xool xamal xamal la laa nekkul complexe alors waa di nga xool lii kii nga seetaan te yépp laay seetaan. Mm. kaa yi ngay dégg yi yëpp gis naa ko. kon kaa yi xew ci réew mi yëpp. yi fi xew ci réew mi gis naa ko. boo ci yëg. lépp gis naa ko. di ah ah ma lépp yëg naa ko. boo ci yëg bu ma yëgul. yëpp yi nga yëg yëpp yëg naa ko. limal ma benn. yëg nga yëpp yëg nga ko. garab ma koy limal. ma lim man da ngay def kaa di xool di gis ni di xam di apprécier di xool di di di di di. ma lim ma lim kaa limal yëpp. kaa bi nga xam dégg nañ ci Pendo yëg nga ko. yëg naa yëpp ay mami Cobra ay mam ñaay savon ba nii nii ay Sidi Diop nii ay tée nañu mam ñaay savon si si si kii bi si si si soirée bi dugg ak yooyu yëpp yëpp gis naa ko de gis naa ko de kii mooy réseaux sociaux ah? xam nga xam nga lu gën a bon ci àddina man bugguma nit bu bu bugguma gis nga man wax naa ko sànq nee naa la man li ma gën neex sama jikko mhm. mooy dëggu ok dëggul ma wax li xew ci réseaux sociaux yëpp maa ngi koy gis dafa fekk kay daf maa ñorul ba ma ciy dugg di ci wax mbaa di jot li waaye yëpp yëg naa ko mam ñaar dañ ko téye ci kii ba ci euh, ah, officier bi da ko téye si porte bi Sir Diop woo na ko kii wax na si ni ni nii ananana yow yëg nga boos ak ummi voyage nañu wala demuñu visa bi jox nañu ko yëg naa lépp di <laughs> yëg naa lépp Oustaz Modou Fall yëg naa lépp toog muy dox yi ñuy wax yëg naa lépp ak tëdd muy dox yëpp yëg naa ko ay bërëgu muy dox yëpp yëg naa ko maa ngi gis yi yëpp dafa fekk ne am na yoo xam ne du ma ci wax parce que du sama gaaw. ak lu motif yi dégg itam. déggoo ma de yi ñu génne korte bi yëpp yëg naa yëpp ñu wax. <laughs> gis nga ko euh, ma yow ci réew mi laa dëkk de man man man aw ma téeméeri at nekkuma màgget de. dëgg la xam nga ne invité invité la nga naan non tu sais man nag man. Mhm. ma focus sama concentration. yëg naa lépp kon sa TikTok da koy déconnecté <laughs> dama ko télécharge dama am compte. très abone 700 abonnés ma léegi ma am 1 million. macha allah xanaa kon kon maa ngi si xew ci réew mi. yëg nga lépp léegi bu ñu duggee si TikTok bi bon je ne pas entrer trop dans les détails mais damay wax li nga xam concerné concerné na sa sœur bi nga yëgee coow li est que am na loo ko conseillé. bon. coow li bëri. am na lu ñu ci waxtaan mais loolu sunu kër la. je sais waaw sunu biir la mais en tant que frère mhm. conseillé nga ko quand waxtaan nañu entre ñun ñëpp parce que bon ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. avant tout d'abord déggante nañu. Mhm. bi ma ko yëgee aussi euh, mami Cobra suma sœur la. Mhm. ma rakk la comme ni pendoo nekkee magam noonu laa nekkee magam ma woo ko mu respecté ma aussi jox ma cër mu dem ku baax aussi. Mhm. ma wax ko mu dëggal ma. très bien lu mu jàppoon mu bàyyi ko Pendo lu mu jàppoon mu bàyyi ko. ñu jàll ci bi ma leen di wax new ma kii a tooñ mbaa kii a tooñ. Mhm. dama ne ci digg bi. kii sama rakk la kii sama mag la. ma wax leen yéen ñaar kat war na gën a mën a rafet Sénégal dañ laa bëgg mami Cobra. Pendo sénégalais yi dañ laa bëgg bàyyi lépp mu sedd ma woo Mamy Cobra woo yaayam woo Pendo wax ak moom jël Mamy Cobra parce que même sama yaay wax lu rafet ndax loolu moo loolu rek la am devoir de frère